waaw ñoo ngi koy ñaawlu ci doxalin bi ak ci euh, taxawaay bi ndax bureau assemblée nationale euh, réewum Sénégal xam ngeen ni réewum yoon la lépp luñ fi def wala ñu koy jëmmal tamit ci yoon mooy wax nan lañ koy defee ci yan yoon la ñuy jaar kenn ku ci nekk fan nga sañ a tàmbalee ak fan nga sañ te jéggi fooy yem bu dee ci assemblée nationale nag dafa am benn loi organique ñu koy wax réglement règlement intérieur Euh, moom moo koy saytu bu ngeen demee ci article soixante bi moo wax ni proposition de loi ak projet de loi assemblée lañ koy déposé te dañ koy bind su ko président assemblée jotee dafay dem yëgal ko assemblée bi ñu constaté dépôt bi su ko defee mu bind auteur bi ki ko indi wala ñi ko indi xamal ne leen ni yëgal na ko euh, assemblée bi suñu dajee nag ñoom bureau assemblée li ñuy defaat mooy saytu ndax proposition de loi bi man nañ koo jàllale ñuy wax recevabilité wala irrecevabilité waaye nag yoon moo leen wax ci fan la ñuy saytu sañu ñoo seet ab loi ndax bii yàlla na wala yellul li ñuy wax opportunité sañuñu ko yoon mayu leen loolu lim leen may mooy ñu saytu yoon bi euh, loi bi proposition de loi bi plutôt su fekkee dugal nañ ko bu jàllee ndax du am li ñuy wax ay incidence financière loolu rek la non seulement danoo jalgati yoon ci ñoo xam ne ñoom lañ wax ni ñoo war di rëdd yoon waaye dañoo jox seen bopp sañ-sañ yoo xam ne yoon jox leen ko ci ci ñaareel bi euh, yéen ngi doon wax ni état bu Sénégal dafa am agenda boo xam ne ñu nga xam ne ñoom ñooy amaana ñaari tur yi doon wax ci rapport yi xam waaw Sénégal xam nga ñoom dañuy wax ñaari wax bu ñuy wax euh, loo xam ni si moom moo jëm ci agenda boobu ci farañse la ñuy wax sénégalais yi ñu ci ëpp dégguñu français bu ñuy wax lu jëm ci mbir mi nag di dalal xelu sénégalais yi di leen nelawal dañuy wax ay waxi kocc yu waaye EPU bu bii nga xam ne moom la Sénégal mujjatee li fa Sénégal wax mooy mbirum góor jigéen réew mi yoonu réew mi terewu ko waaye yemul ci loolu amul kenn ci kasoy Sénégal yi koo xam ni mën nga fa tëdd te mbir moomu moo tax mu téye ko waaye yemul ci loolu ñu delluwaat wax ni na leen Nations Unies may am néggandiku ngir ñu xool ci yan yoon lañ mën a jaar ba li Nations Unies bëgg am te loolu yàgg nañ ko leeral yàgg nañ ci joxe ay firnde mooy ginnaaw mbirum yoon la ñu koy wax àq ak yelleefu doomu aadama droits humains ñoom dañ koy jaarale ci wàllu yoon ba pare moo waral ñu def disposition bi ci constitution bu Sénégal ci article vingt cinq bi alinéa te loolu ñuy wax àq ak yelleef yu bees pour keneen ki muy droit d'autrui xam ngeen ni lu jëm ci àq ak yelleef bu sénégalais yi citoyen sénégalais yi mais un depuis constitution 2001 bi bu ngeen demee ci article 8 bi moom moo ko consacré lim na ko listé ko bind ko kon yeneen àq ak yelleef yi ñu ciy waxaat kañ moo lay wax ni yuñ jëlagul woon la loolu moom leer na ñëpp mm-hmm. euh, d'accord calendrier bu ñu calendrier LGBT bu ñuy bu ñuy bu ñuy nëbb la maanaam bu ñuy déroulé agenda agenda LGBT bu ñuy nekk di déroulé ci suuf waaw moom laa doon wax léegi nii ne d'abord dañoo jaare ci wàllu yoon dugal ko ci constitution bi waaye ci seen mébét ak naal xam nga ni nit buy def dara rawatina ci suñu dayooy état yi dañu ciy jiital seen xal ay xel ba noppi dañ koy xeltu looloo tax ñu tëral benn programme boo xam ni document stratégique la ñu koy wax SNEC 2 diir ko ci fukki at yoo xam ne dafa ay jubluwaay ak i nammeel ak yi bëgg-bëgg yuñ ci am loolu mooy bu ñu yeggee ci deux mille vingt six imam bi nekk biir Sénégal évêque bi ki nekk bois sacré ki nga xam ni dafa nekk ci di yëngu ci sport ki nga xam ni si dafay jaay baykat beeg sàmmkat beeg nappkat bi ak góor jigéen bi ñooy bokk kiif kiif ci ku ci nekk la ngay def ak la nga bëgg ak la nga yëg na nga ko bëggee nga koy defee. nga xam ne ni défaite bi nga xam ne euh, APR am nañ ko ci élection locale yi mu génnee. Euh, euh, bokk na ci li ko dafa laale ak bokk li nga xamante ne moo di proposition de loi bi nga xam ne def ngeen ko te ñu rejeté ko. waaw loolu dañu waxuñu ko waaye waroom xam-xam yi nga xam nee nañ dañuy xeltu te ngeen dégg leen ñoom ñëpp ñu jaar ci seen euh, canaux yi ci ci seen plateau yi ak ci média bi ñoom ñoo jàngat def ne ñoom daal gis nañ dellu ginnaaw gi nit ñi dellu ginnaaw ak surtout discours yi nga xam ni déggoon nañ ko itam ci campagne yi ci la nga xam ni kon dellu ginnaaw gii euh, Benno Bokk Yaakaar dellu ginnaaw ci laaj gi mu doon laaj askan bi mënees na koo lëkkale ak gantal gi moom ni dañoo gàntal proposition de loi boobu loolu nit ñi jàngat nañ ko te ñu ko delloo ginnaaw ndax tey bu ñu seetloo bari na ay dëkk yoo xam ne nit ñi seen thème de campagne lu la woon ñii wooteel leen mooy jàppale ngóor jigéen kon nag gis na ni nit ñu baree bari foofu lañ taxaw ni ñoom duñu bëgg ak ngóor jigéen tey duñu ko bëgg ëllëg duñu jàppale ab góor jigéen tey du duñu ko jàppale ñoom yegg nañ sax ni képp koy jàppale góor jigéen góor jigéen. rassemblement rassemblement bi ngeen war a waaw rassemblement bi février bi ñu jëm ca ñaar fukki fan ya incha allahu rabbi lañ ko fas yéene def muy doon rassemblement boo xam ni képp kuy sénégalais te bëgg réew mi te li fi dox neexu la te nga bëgg bu mu njaam dog te nga bëgg ñu aaral ñu suñu penc mi. te nga bëgg yi tamit suñu kilifa diine yi seen kàddu ak seen yi cër ñu jox leen ko ci réew mi diñ am ndax ñooy kilifa réew mi te nga bëgg yi tam yoon di dox kenn du ko jalgati te nga bëgg yi tamit musal sa njaboot sa doom sa jarbaat ak ku aju ci yow ci mbirum góor jigéen bëggoo ko gis sa kër ñoo ngi lay woo le 20 février ñun ñëpp ñu génnandoo maase taxaw su muy wane ni loolu duñu ko def danañ dellusiwaat incha allah ci barab bi ñu koy bi ñu defee ndax euh, fa jàppoon gis na ne ay travaux de femme euh, te bëgguñu di wax euh, barab di ko kiiwaat waaye danañ informer incha allah barab bi presse bi ci barab bi ñu koy def incha bu ñu ko defee waaye le vin bi moom soob yàlla moom lañ jàpp ñoo leen di sant merci professeur merci